laajte tapis rouge gis ko xàmmee ko ñëpp ràññee ko ci Sénégal ci liggéey bu mucc ayib ubbi na supermarket bu nganda nganda nganda nganda nganda. xanaa santati Cheikhul Khadim. tapis rouge à Touba Darou Marnaan jano ak ancienne banque islamique bi sur une superficie de deux mille mètres carrés dafa lu extraordinaire lépp jëm ci décoration lépp jëm ci ameublement ñu daal di dekkal promotion boo xam ne jëm ci salon sept places yi nga xam ni dafa am canapé am trois place deux places de fauteuil àndandoo. togg table ba noppi ñu may la mokket bi ci cent quatre-vingt-dix-neuf mille francs donc chambre à coucher ñu may la matelas ci six cinquante mille francs donc salon Louis XIV modèle royal ñu offrir la moquette bi ci neuf cent quatre vingt francs donc te nag njëg ba ma nga doon jar un million sept cent table à manger marbre wala en verre quatre wala six place ñëw leen découvrir suñuy meuble lépp du luxe lépp di xéwal ci njëkk yi léegi nga ñëw. ak sa air ah, lu xew. dara. Hmm. mu bañ. Hmm. tax góor ñi bëgguñu relation bu sérieuse. nga tax nga wax loolu. Rune sama copain bi. ah Rune. man daal ma nekk moom ñu nekk ci ambiance bu neex. agréable di foo di kaf ron daal jékki-jékki rek changé nekk di ma proposer ay intimité ay néeg ay affaire yu mel noonu nga koy damaa bañ mm-hmm. waxante lu nekk mu ñëw ñibbisi mm-hmm. ron nag mu xam naa ne mer na te ni ma ko xamee moom damay bàyyi très bien fait ci àdduna bu la benn góor jaral nga perdre sa dignité xam nga lan moo gën a metti ci àdduna ëllëg nga am boroom kër sa yëpp ay am problème ngeen di waxante di xuloo mu ne la fekkuma la ngay jànk loolu gën a metti ci xas takkal bu mu dëgër góor gu am fulla du caaxaankat ñëw takk la peut-être nag test la rôle mën na am dalay testé di xool ba xam ndax ci xale yu jigéen ñi tey nga bokk am déet bu dee fulla rek moo ko tax a jóg dina dellu si man de man mii sa umpaañ kontaan naa ci yow téyel ba mu baax ku baax ñëw takk la jarul triste nag xam naa ne dangaa bëgg rôle kontaan naa ci yow xaaral ma dem defaral sa nijaay meewam bi ndax guddi na dégg nga naa ci yow. Ron dina ñëwaat t'en fais pas dina ñëw. bien. oui ça va. foo jëm ni école laay ñëw dem. école kaay ma non non grand bàyyi ma jël bus bi. kaay ma yóbbaale la. ñëwal y a pas de souci kaay. ñoo bokk yoon sama yoon la allez yoon. sama yoon aywa Aïcha teel a dem heure bi ngay dem université. waaw damay bañ a raté bus bi moo tax. kon yooyu mi ngi am université ba tey man j'étais là-bas mais ça va quoi mais tey woon ak li ma fay dégg vraiment doy na waar. Hmm? bon mais yow moom xam naa ni jàmbaar nga ko tu réussiras incha allah gëm ko rek. incha allo. nanga def. oui ça va ça va très bien. Ah, xam nga ne ma toogee benn bés sax gisuma la moom dama lay nam ma. xanaa xëyagoo. non non xëyaguma. ah yaa ngi bëgg naa nga ko. lan ci fajar bi waaye Mamadou Lamine ba sa xol nga dem. Ah, yaay kooku dinaa ko woo ama nekkuma seen affaire maslaa yooyu de naa ko woo mais su ma may jot. waaye papa du ndaw. ak lu mu doon sa papa la. léegi ba ci lan léegi moom fan la nekkoon ñoom bu ñu ko soxloo moom ah mi ngi doog fàttaliku fàttali ni moom frère am daf ci bàyyi ay doom. bul xool loolu yow toppatoowu la foofu nga tekki waa lim la bëggaloon amul moo tax nag dangay ngay jaar fa mu nekk. daagul ca fa mu nekk. ma ne mbaam bu la wéqee nga wéq ko yéen a bul xool lu mu la defoon démb. yaay kooku bu amoon jom bu amoon jom du xaar ba heure bii nii muy doog ñëw di xool ci li ñu nekk xam naa dem na taxawaalu tasaare xaalisam. léegi muy ngi doog a fàttali ko ni frère am dafi bàyyee doom. parce que il a vu que ni là maintenant on a on s'est débrouillé sans lui ah non non non. bu doon sama mbokk duma ci wax mais comme sa côté baay la ku am ndey da am baay am na foo xam ne buñ fa tolloo ëllëg sa mbokk baay yi la ñuy woo. waaw waaw baax na baax na yaay baax na dinaa fa dem ba mais soo amee jot. waaw kay góorgóorlu rek. waaw maa maa ngi xëy maa ngi xëy naa la woo ci kanam xam man li moo tax gis nga man aram man ay affaire sëriñ man bëgguma ko li yëpp waxoon naa la ko loo xamul rek xamuloo ko hmm. gis nga nag loo ci mën a dégg ku jiig njaag yow mi yaay njaag ah. waaw gis nga ab sa lañ la jox boo ko defee woon lañ la ko waxee kon heure bi yaa ngi savouré résultat waaye buñ la ne daqaar gi nga ne guy gi ah ah léegi daal xam nga wax ci lu ko guddal ak lu ko gàttal lenn rek la damay dellu ci sëriñ bi mu joxaat ñu ay affaire ñu làbbali lan bu fekkee ne am nga keneen koo xamante ne mën nañ dem si moom mu digal ñu ay sarax pour ma gën a am jàmm sama biir néegu sëy baax na mais pour sa sëriñ boobu moo merci ab sa noonu nga ko gisee ba mu ci mënee jàppale rek nga jàppale ma ba tey baax na waaye di doom day dinaa la wax dara gis nga ci biti hmm. Clémentine xaw ma mandarin mu ngi ne sew rek loo waddal mu for ba booba maa ngi dem. Ah, baax merci. Euh, euh, Aïcha Aïcha Aïcha kat ngay ah. am benn tête à tête waxtaan gën a xamante ñu nante t'inquiète su ma amee temps incha allah d' sax xanaa di nga bàyyi léegi di romb ci mbedd bi te doo ma nuyu ah? <laughs> bon xam nga man dama fonk dëkkandoo xam nga lu tax hmm. bu neexee ñoom ngay gis waaye itam yëpp solo bu naqaree ñoom ngay njëkk gis balaa sax say mbokk di ñëw donc moo tax mag yow ma bëgg ñu échange gën a miinante gën a xamante d'accord. Arrête de jouer à la <laughs> et puis sa papa. Babacar yi xam naa ko bu baax. dañuy tase si jàkk bi fajar bi ñuy julli. et il me de conseils beaucoup. <laughs> Euh, dinaa jaar seen kër. gën a miinanteeg di gën a <laughs> maa tey kontaan naa. maa la gën a bekk. loo ci xamul nag su ma la gisee day mel ni Mamadou Lamine laa gis. man de waxuma dara mais sa yëfu turandoo bi nga defal ma saf clémentine bi nga sol. <laughs> góor daal na la nopp. <laughs> ak a wóor. <laughs> waxtaan bi neex na kontaan naa de. maa ngi salaam awa. soxna si ça va. bien ça va bien merci. bien ah, ma ko de. la tudd. ah clémentine awa la la. tu vas. ça va bien merci. kee jël xolam ak xëtëram yëpp jox Mamadou Lamine. ay maman bàyyi li ngay wax sama xol bi yaa ngi gën a sedd. <laughs> awa ça va. ça va soxna si merci yow maman. Uh-huh. yan tur parfum nga ma waxati sax dama ko fàtte. ma bi ngay xeeñ neex na. Ah. waaw waaw te man ak il faut ñu bokk xet. ay ah, yow te muy dëgg. collection bi laa la indil. yow loo def moo gën loo def. déggal ma lii. doo ah. daal na la nopp bu baax. <laughs> dama ni. waaw léegi ca law yàlla ay maa law. Eh. xoolal ni nga mel. <laughs> tarkal la 200 mètres handicap corde à droite arc de triomphe. dëggal ma li àdduna la bëgg àdduna lay wër. déedéet kay. tous tasaar. <laughs> ñëw. xanaa Fadi di nga ñëw añ si la gis naa la gis de. wax nga dëgg nag. wax nga dëgg parce que faaw ma dëkk nga toggal ma ceebu mbay doo fëri mbay. Hmm? def ci juróom-ñeent fukki bu leen sànni ci soos rek mu daal di xonq. jeex na mooy dëkk mooy. ani maire. maire <laughs> Abbas. <laughs> mais mais dafa mel ni man ba ma yeewoo ba tey gisuma fi mer ah. yii ba ma weer est-ce que génnul. xam naa dafa génn sama ginnaaw rek. wax nga dëgg nag xam nga mais moom du faral di génn. effectivement moo tax woo ma ko su may ñëw mais amul problème xam nga nu def. Ah, ah. joxal ma ko lii. waaw dinaa ko woo. na xoolal comme ça. xoolal may ma deux minutes ma sol samay dàll rek nga déposé waale. waaw daa ko am problème. tey Abbas. <laughs> waa cousine chérie. waaye nu ma la namee nii maa la raw. waa sa jongoma la la. moo ma jaaxal gis naa la bëgg ci jeeg wuy ma aw ma toogaay damay dem. sama bagage yaa ngi ne ma. xam naa ko yegsi jox ma rek ma dem. yow bi rek. yow wax nga dëgg de mère de maa ko waroon a woo ne ko dama fiy jaar waroon nga ko fekk nag ah? fi yóbbu. ok c'est bien c'est bien mais yow ban ko da ngay jaar. fooy dama yóbbu am benn problème ma centre ville. Eh! Abbas. lii la mais pono bi dafa mel ni dafa mel dafa peer waaw. dafa mel ni dafa per man dawewu ma nii bi ma wàccee xool naa pono yi. ah non dafa peer dafa peer. waaw ah, amul problème kay jàppal ma ma changé ko. ah lan. tam ibi maal bi nga jàppal ma changé ko. soo nga ni ma sañse sañse ba matt géej gi juddut xale clinique nga may sëgg lool nan ma ay. non xoolal. bàyyi ma wóol la vulgarisateur bi rek <laughs> mu ñëw quoi parce que. Ah, ah non ah tamit xoolal li ma sañ sa nag. ah doo ma sëg ah, waaw bu yéen bu. Ah, <laughs> nañ ko dakkal ba lii jàll. wala <laughs> ci kanam. ok jaajëf. xoolal bàyyi ma dem rek. dinaa fi ñëwaat bu ma ñëwaatee. yow daal yaa ngi noonu yaa ngi noonu rek eh, eh, eh, dama koo fàtte. lan moo xew dama koo fàtte. indi nga pettaaw. yii bàyyi naa yooyu yow. lan yan pettaaw. wala dangaa bëgg yooyu. dama lay expliquer daf may sonal rek jànk bàyyi ma dem. wuy ma wuy ma bu yeggali bu yeggali xoolal. ndànk méttiwul yow su ma la expliqué amul ay explication ma da ma fay bëgg a nii. waa kaay rek ma dem ngir yàlla wax. salaam. ajuma. Ah, bi nga bàyyi. waaye bu ko xam nga ne du ma la bàyyi <laughs> am am am Modou àggaleel ma wàññi bii waaye chéri. <laughs> ajjuma noo def. waay maa ngi fi aram noo def. maa ngi sant bu baax a baax. yaa ngi ci jàmm maa ngi si jàmm waaw. naka waa kër ñu ngi fa ñëpp a ngi si jàmm. alhamdulilah ab saa ngi may jox nag toujours say nuyoo. dëgg la wallaay saa bu ma kii rek mu ne ma aram a ngi lay nuyoo. dëgg la yàlla dafa dogal. xam nga ne place bi rek ki lay xëy fi lay gont dëgg la aw ma samedi aw ma dimanche looloo tax ñaari duñu tase kër ga ajjuma gis ne liggéey boo gis dafa war a ànd ak vie familiale waaye ajjuma yow du samedi yow du dimanche moo tax saa su ne bu ma waxee ak Absa rek mu ne ma ajjuma daal du ma ko gis du yendal du fanaanal mu ngi ci liggéey bi yëpp da ngay noppalu nag aram dafa fekk ni noof laay moom warul kenn rawal na te nag borom kër te nag li may daw yëpp dara ko lul njaboot dëgg la ndax nag damay góor goo xam ne bëgg naa fu sama jabar génn ñu xam ne kii jëkkëram ñu ngi koy toppatoo ma àjjuma loolu moom du ma la bàyyi sax nga àggale mhm. ndax bu dee yow rek góor li ko war ci diggante ak njabootam ak jabaram mhm. yow zéro faute laa lay wax mhm. yow moom loolu boo ma ko waxul sax ma gëm ko ah jaadu arab ah, tey nag nit ki moom bu nu ñeewul sa aaw ah waaye génn génn jigéen du waaye àjjuma xanaa dañoo am wujju te yëguma ko. ah wujju. ah aw ah, nga wax de. xalaatuma ko mukk ci sa xarit. Ah. waaw waaye dafa fekk ne nag waxin la rek. dégg-dégg ah, la laaj dégg la laaj daal la rek. waaw ayca kon loolu dal na xel. ma ne xam naa damay ñëw dem nag. déet dama laa soxla. man waaw. mbaa jàmm eh, eh, Umar jël leen tuuti may ma waxtaan jàmm la rek nag jël leen tuuti may ma waxtaan. yaa ngi laaj sa jàmm ak sa jàmmu yaram alors loo gis li ngoro la ngoro ku jigéen kii bu nekkul ci ay mbooloo day fréquenter jigéen lu bari moom la tey doxaan ci naa ko. waaye nag sa jëkkër a topp ci ginnaawam de. Hmm. ku jigéen ki buggul ngoro bi na leer. alhamdulilah. gaawal nag yow tamit waxat. bii beneen bu bokkul ak bi ma la wax. bu bees tàq beneen la. ngoro. ngoro. jigéen bii bu sëyul ba tas de mës naa tenj. tënj. jigéen du tënj. cousine kii jege na la jege man day xaar kër gi ñaari jigéen ñoo fi ñëw yow la ak aram te gis nga aram man ak moom dafa mel ni ñoo bokk ndey ak baay moo xam sama biir xam sama bétti te ku ma bëgg la. gis nga cousine sa yooyu ngay def moo amatul sa loxo càmmoñ bi sax bu ko wóolu man sama pettaaw yi li ma wax rek laa la wax xaw ma arab xaw ma ndey faatu du yaa ngi dégg kii dalaa jege waaw oui ma doo xoolaat xëy na nga gis ay sarax ak yooyu lu koy naa la ko vocal li ma la wax xaar nag yow tamit na xaaratul defaatal rek beneen. tànk yii mu jaar baaxul ci man ndax nag ab sëriñoo sëriñ maam manoo maam man ab saa nga fay dem waaye li ma ci gën a jaaxal di yëkkati ay yoo xam ne di ma jox loolu mën naa ci jóge sax génn àdduna te bu boobaa mooy ñàkk ak xale yi ma bëggoon nag nga woo sa xarit waxtaan ak moom. man de mu ngi mel ni barre de fer nga dóor sama bopp ab sa ak sëriñ. yëgoo ko yëgoo ko. man de musuma cee wax dara. xam na lu tax bés bu ne ma ne hmm. leen jeeg la muy téyee jëkkëram ci biir këram. Hmm. ci moom la ne. kenn du dem ci sëriñ di ko wuti. Hmm. jeeg da ngay teel a sangu. di xeeñ neex boole ko wax bu neex. moom sa biiru jëkkër moom sa xelu jëkkër ak sa xolu jëkkër. loolu mooy solution bi. waaye sëriñ da lay yàqal. jërëjëf Aram. man day euh, alhamdulilahi rabbil alamin laa wax ndax xamoon naa ne lii bu ne toq ci sa nopp di nga waxtaan ak sa xarit te boo waxtaan ak moom dina la dégg dinaa wax ak moom àjjuma loolu moom bu la ci dara naqari lii moom dina ko bàyyi ay sëriñ luy loolu loolu kenn dafa xewi kenn defatu ko dëgg yàlla ah maa ngi ñëw dem déet ah taxal bul dem ah, ah waxal loo soxla fii ma jox la ko àjjuma doo ma jox dara man waxal rek chaque jour nga jox ma doo ma jox dara arab wax ma loo soxla ci bi ma jox la ah Modou Modou Modou kaay kaay gaawal gaawal <laughs> ñëwal. tey àjjuma foo ma fekk teral ma. ah nee na nee na nga jox ko gaamu tey noir bi rek waaw. joxal ma ko aram yaa ko moom yéen. waay kontaan naa bëri na. a ah, yaa ko moom fii lu fi ne yaay borom. dëgg la àjjuma ah, fii lu xam naa ko xam naa ko de. Ah, noonu nga mës a def man wax dëgg yàlla. lew na la dom <laughs> jërëjëf jërëjëf lu fi ne rek yaay borom. <laughs> waaw lu fi ne lu fi ne yaay borom. am am maa ngi dem eh, déedéet ay dem xoolal du ma ko jël déedéet du ma ko jël nag yow tamit waay yaa ko moom paas la ay yow lii bëri na de paas la paas la jëlal yaa ko moom laay ay ajjuma yaa ko moom jërëjëf kontaan naa yaa ko moom yaa ko moom <laughs> merci beaucoup kontaan naa alors <laughs> waa kay maa ngi gën a kontaan lii li ngay xoolal li ngay jooy yëpp dinaa ko faj incha allah merci merci kontaan naa merci alors <laughs> waa kay baax na Bonjour. Clémentine dangaa naaje tey lu xew Agnès man daal yaay Lemzo laa demoon yóbbuli ay tissu naka laa wàccee gis ni crevé sama pono men ku def loolu cay lem mën na lu ne cay l'amour. ñu <laughs> hmm. euh, le versement. waaw comme dem nga banque ba ñëw. dem naa ba ñëw je peux avoir les reçus s'il te plaît. bien sûr nga ne ay tisi nga doon yóbbu Kelle <laughs> tisi bi wuyu ma neel bi mu ñëw ko soufflé fayal ko ñaw dégg man dama laa bëgg je t'aime billaay vir virganisatrice am na fii dégg nga <laughs> pour sa pneu bi crevé non kii dama koo bëgg ni ma ni nga bëggee fantôme laa la bëggee. wa wa waaw oh <laughs> mais mais mais mbaa réeru ci yoon bi. ah ok c' est bien gis nga ah. kon fii mooy restaurant bi non nga ah. boo xoolee dañu nekk en chantier mhm. dañu nekk en chantier. ok fenee terrasse laa fa bëgg a def. donc terrasse laa fa bëgg a def def fa billard pour jeunes yi. di ñëw di mën a divertir. macha allah c' ça fii fii fii mooy dibiterie bi ah. ah. yàpp bi ma la indil keroog. effectivement mooy yàpp di bi xar bu amul bàkkaar bi ah, <laughs> fii lañ ko lakkee donc macha allah ba pare ci kaw aussi bëgg naa ko promouvoir benn espace boo xamante ni sama gan yi nga xamante ne ay ganu high class lañu bu ñu dikkee fa la nekk quoi. macha ah, allah franchement ndax dama am ay dama am ay gan yu kawe quoi. macha allah da ngay nii baax na. Ah, c'est ça yegg si yegg si yegg si ñu gën a visiter ci l'endroit que j'ai réservé à mes invités de marque. Mhm. Ah, tu as vu donc fii moom. sama ah, sama invité bi waaw sama invité high class yi comme on dit <laughs> laa tu as vu Youssou Ndour. Ah, sama <laughs> le roi du mbalax. Thione euh, Ballago Seck. qui nous a quitté tout récemment oui oui. Euh, tu as vu. donc euh, salle bi daal mu ngi la Diouf <laughs> le ballon d'or c'est ça. tu as vu Jules mhm. François Bocandé. Mhm. donc. Non, mais bon, là, là, là, maman aussi avait raison, hein. C'est ton nom quand même. Tu veux pas, euh, voilà, solo et tout. Bonjour. Merci, très bien. Merci, merci. Je disais, c'est ton, c'est, ton oncle en fait, quoi. C'est pas, c'est pas possible, quoi. Tu vois, il y a des hommes, ils refusent leur paternité. Et quand ils voient que l'enfant, voilà, a réussi dans leur vie, c'est eux qui reviennent là. Ils débarquent. Ouais. On ne voit que ça, en façon. Tu es au Sénégal. mbiru Sénégal. si Amina moom lay xeex chaque fois. yow l'avocate des enfants et des femmes. Amina mais ça fait un bail hein elle est où Amina. mi ngi fi elle va bien. mi ngi ci jàmm. mi ngi fi rek ci liggéey bi ak seen association boobu là. waaw. mais ça va elle va bien. mais dis-moi comment il s'appelle encore. Euh... son mari Aziz. je crois Aziz, va. il va bien mi ngi <laughs> dans la musique rek. ouais toujours. mais ça se passe plutôt bien moom pour lui. avec Aziz. ouais se débrouille pas mal ah. ok da koy taxale de. caay Aziz. nitu jàmm la super cool vraiment que Amina ait un mari comme ça. waaw gain bu cool la. waaw gain bu pas très fin ah. on peut prendre. <laughs> mais gis nga gars yi moom boo leen boo leen taxawoo la xaw a liggéey bi quoi. dëgg ah, fi moom dama bëgg lépp di kaaw. ah mais fii moom foog yi parce que da nga fi investir de. macha allah fii moom da nga non fii j'ai affronté mhm. pour mettre en place seen bi bi waaw. soxna. mami ça va. waaw ma naa la. nañoo gisee. yàgg na. yàgg sax ça va bien. xanaa da nga si woon fii. non fii man maay gérante bi. maa gérante la venue. Ah sama cousin moo ko sa cousin kon yow cousinu Abbas nga. ban Abbas. ah Abbas. non sama cousin bi ko moom moo ngi France. ah bon bien sûr moo ngi France. mais toppatoo nañ leen bu baax a baax. waaw ñu ngi toppatoo nag ok bàyyi ma bàyyi leen ngeen. ñu ngi toppatoo ok kon xam naa après bu ma génne nañ gisante. Abbas kon kii nekku sa cousine. que fii dama changé sama tur quoi fii Mbappé Mbappé Mbappé lañ ma xamee quoi. naan maa moom restaurant bi dama jànge France mais yow loo jubli si loolu yëpp mais doo wax dëgg ah Abbas kii dama la koo fàtte présenté sànq Pape Pape Bouba Diop Pape yow kii man maa la ko gën a xam moom lañ tuddee stade bi waaw baax na baax na mu may ñu ndax ok merci baax na hmm. Georges Weah xam nga